annahu nag dañoo xaw a naaj yi moo tax duñ guddal ci taalif bi waaye dañuy nuyu si kilifa yi teew waaye suñ ci tànnee ci kilifa yi teew sama kilifa gii di sama lépp di sama di ñaay di sama sëriñ ndax jàngal na alquran karim xul may yasaxukum ba may tàmbali juróom-juróom fekk mu bind kaamil alquran karim ñibbi te laa tàggoog loxoom ñu si Asri Ousmane Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu di jiital ci nuyoo bi sëñ Abdou Ahad Ndaw bi nga xam ne moo ñu fi liggéey bi ñu bi nga xam ne ñoo ak mbooleem ñu ngi leen nuyu di leen dañuy tàmbali liggéey bi ànd ko sëñ Massamba Ndaw ak sëñ Ousmane bi rek suñu côté ak suñu Ibrahima Diop ñi nga xam ne ñoom leen wax ne ñoom leen seqal wàllu téere bi ak kilifa bi taw ñu ànd ak ñoom ci liggéey alquran karim bi jéem a ànd ak xale yi nga xam ne dañuy gunge ñu mokkal ginnaaw bi xamee ne ñu mokkal mokkal nañ ba noppi bañ leen alquran kaamil bi tey nag ñu war a leer lu war a barkelu seen i mbokk teewee ko su ko defee day njëkk xale yi nga xam ne dañuy gunge suñu noppee dana am ay soxaaba yi fi jàll yu am am solo yu jëm ci wàllu wayu daara ji aw yu jëm ci wàllu nga déglu alquranu karim ak benn discours boo xam ne day fàttaliku nit ci boppam di ko fàttali ëllëgam di ko fàttali boroomam ak nu tudd ak jeexitalam ak xamal ko ne ko doomu aadama amul lu fàkkuteefam adduna alaxira discours boobu tënk neen ko mu war a jàll ci wolof wala jàll ci arab ndax day ànd ak wolof beeg arab bi te bépp wax mu wax da koy tegte rek aaya alquranul karim kitaabullah min nasul kitaab wala min ayatul quran ak Ah, waxi Serigne Touba radiyallahu taala an ñu ñaanalante waat ba dem di déwén kon ñu ngi fay doon di siyaar bu baax Cheikh Mouhamed Nil Mountakha ibnu Cheikh Mouhamed Nil Bachir ibnu Cheikhul Khadim na ko fi yàlla yàggal dooleel ko bis ñu ngi day la soññee mboolem fi ab jullit ci àdduna rawat nañu aju ci yoonu murit ñu jàng alxuraanul karim def ay ñaan ak def jàng ay yàlla suuf bi ci néewatub jàmm wàcc ndoxum jàmm ak salaam defal ñu gàncax a faji aaju add xel mu daal it mi yaan ngoo xam ne danañu mën a rafaatal lépp lu ñu fàtte woon lépp kon ñu ngi ci ndokkal baax di ko siyaar ak mboolem xalifa général yi nekk ci biir euh, dëkk bi yëpp rawat na Sénégal muy xalifa général de Tidiane xalifa général de Layine de Niassène de mu xaadir ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax suñu mbokki jamaat Ibaadu Rahmaan yi ak mboolem koo xam ne rek mbokk jullit mi dama ko waxoon ci kàddu gi ba may tàmbali mbokk jullit mbokk jullit laa wax waxuñ mbokk taali waaye mbokk jullit kon bisimilah mi njëkk woo ñu ngi Abibu Seck di doom ci sëriñ Adama Seck ak doom sëriñ Dame Seck ak soxna Dieye Seck mu ñëw xat ci waxtaan karim moom sëriñ Abibu Seck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 عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة السلام الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تحطانون أنفسكم تختانون أنفسكم فطاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من القيد الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها kazalika yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laallahum yattaquun. Shukran Serigne Mouhamadou Seck. Sadaqallahu l-aziim. Kasiiran minal jinni wal ins lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له إن كيدي متين أولم يتفكروا ما صاحبهم جنة إن هو إلا نشير مبين أولم ينظروا في ملك السماوات والأرض في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء من شيء وأن عذاب وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون jërëjëf sëñ Fallou yal na yàlla may la fan gudd loo ak wér ak alxuraan ji bokk mbàkk tool mbàkk turandoo الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم والقلم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 الله والرسول فاتقوا الله وأسلموا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم أجمعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مؤنس إلا كانوا إلا كانوا عنه مؤردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض alxuraan ji neex na lool yal na yàlla dina la wér والرجل والشيطان والنصران أغاثنا الله من النيران والبغل والشيطان wax la gaa yey dëkkee jàng alquran tey njàngaleeka mindu kaamil duñu la gaa la wax ca seeni pay yawmal qiyaam jar naa dëkkee durus guddeeg ni kaam la wax ca seeni pay yawmal qiyaam jar naa dëkke durus guddeeg bëccëg nikaab ca alquraan moo digga kem li mu ya ca alquraan moo digga payam fa paya li mu xaraf ya mooy li karam ya ca jannatul firdawsi mag ndongam ya li mu ya mooy li karam ya ca jannatul firdawsi mag ndongam ya waxtu wu nekk it yàlla fur seen kër ya limub xaraf ya delu yokkaan ya wu nekk yàlla fur seen kër ya limub xaraf ya delu yokkaan li abadil abadi fil jannaat ñu sax ca seen xewal ya bil minnaat kuy jàng alquran lu jéng-jéng yowmal xiyam deesu ko ceen di jéng kiy jàng alquran du jéng jéng yowmal xiyam deesu ko ceen di jéng kiy jàng alquran pexel seytaane du ko mën a dara wallahi nasaraan isa katabtu aw ki jàng alquran pexem seytaane du ko mën a dara wallahi nasaraan isa katabtu aw qadaatu har wala iblisu fawran maa man taxaw wala li qaari il qur'aani amnu min lahin wa min saqawati wa min amrin muhin man qara alquran min azan amin qad qultu zawal qalbu minni mutmain بركة القرآن والهلوم وقاد يمنا إلى تعليم بامبا كواق ñey jàng kaamilam ba jàngal ma xan moom ba tayer kaamil ba ma wax la waaju bàyyi jàng alquran ngir jàngi l'école foog di ànd nasraan ma wax la waaju bàyyi jàng alquran ngir jàngi l'école fab di ànd nasraan yowmal qiyaam si dekki jaari niiraan malaaka fag ko mu ànd ak nasraan yowmal qiyaam si dekki jaari niiraan malaaka fag ko mu ànd ak nasraan si dekki day def gumba guy palamtu bur yàlla fàtte ko fa muy fadamtu si dekki day def gumba guy palamtu bur yàlla fàtte ko fa muy fadamtu malaaka yay doot di kama di kik ñaadi ko jeng di ko mbéj bul sik malaaka yey dóor di kamaa di ñaadi ko jeng di ko mbéj bul sik déglu la yàlla wax ca saaru taa waaju ko xam doo xaqataay naaha déglu la yàlla wax ca saaru taa waaju ca axma tegal wa qad kuntu basiran yawma ma xasartani ya teg ca axma tegal wa qad kuntu basiran yawma yàlla lu tax ma déggi tey def gumba te dima daa xool masuma xëy damb yàlla lu tax ma déggi tey def gumba te dima daa xool masuma xëy damb bur yàlla naa ko dama laa jax alquran nga fàtte lépp jàngi téere nasran bul yàlla naa ko dama laa jax alquran nga fàtte lépp jàngi téere nasran ba fàtte sariya laa yëpp la moo tax ma junjula manit ba fàtte la ba fàtte sariya laay yëpp la moo tax ma junjura manit ba fàtte la alyawma nansaakum kama nasiitum liqaa yawmikum te yéene new jum li budul konoot ñiy jàng ak ñi julli kon yàlla wobbu na suuf bam golli budul konoot ñiy jàng ak ñiy julli kon yàlla wobbu na suuf bam golli jàngal ma yow lawlaa الرحيم ñi nga loog bari na waaye waxtu wi ak xataay bi moo tax ñu koy tënkee noonu léegi dama bëggoon nga ñëwal ma ci baatu annabi u moom ñaata yoon lañu ci alquran karim fan ak fan lañ koy fekk. juróomi yoon. bismillah. suratul Araf ñaari suratul Araf ñaari suratul Lazaat benn suratul Taxrim. bi ñëw ci suratul Araf ñaareel bi lu mu lu mu wax. suratul Araf. alladina yaqra'una الهدي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تبارك الله kon daal juróomi yoon la ñëw ci alxuraan karim waaw ñu ñëw ci loolu mag ñuy wax ni raa dàq taara moom ñaata yoon la ñëw ci alxuraan juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon bismillah ñaari suratul anam mm. ñaari suratul nahl mm. benn suratul kahf mm. benn suratul sora benn suratul ahzab أتم بسورة العظام أتم سورة الأنعام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أبلغ قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين jërëjëf jërëjëf Baye Mor mbokk yi li ñu jariñ rek mooy ñi jàng alxuraan te bëgg di ko bind ndax laa dàqtaara kooku ci mbind rek lay dox dafa am baat yi dox ci mbind am baat yi dox ci ak mokkal kon Baye Mor Mbengue ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiq tey siir Euh, fii nag ci taabal ji moom danoo bëgg balaa bàyyi moo a jóg ñu séddale benn kaamil boo xam ni juróom-benn fukki saar la euh, déggal juróom-benn fukki isib la isib bu ne ñu jaay ko ñeenti war a yomb bu ko defee nag sama woote toujours sëñ daara ji gis naa fi alhaji Moustapha Ibrahima ngay ñoom sëriñ Mourou Gueye dix neuf ak ñëpp ña ngi ñoom ñoo njëkk a jënd ci isib yi bu ko defee mbokk yi leen gunge gunge leen ndax ñoom ñoo woote ki woote nag moo njëkk a wane boppam ñu jël war cee topp ndax toog ci taabal ji nii euh, benn benn fifty néew fi loolu moom gàcce la te ñu ngi waaj a noot takusaan kon ñu jaay boobu jënd gaaw rek ñu jënd gaaw bu ko defee yeeg tubaarkàlla xisib eh, bu ne ñeenti téeméer la jënd nañ benn xisib muy eh, li mag li ko xale yi wax laan laan lu ko tuddee ma kon bismillah ñii jënd nañ nga génn ñeenti xisib tubaarkàlla yàlla yàlla fay ko kon jigéen ñëpp tubaarkàlla ñoom alxuraan da leen dëppee aw saar muy sóotu nisaa ñaari sib la sëñ bi jënd delloo ko gis nga weccee sax dafay jafe ngir taabal ji ñëw bu ñëw dara lu dara ñàkk bu ñaaw ñàkk kon de bismillah yàlla fay la noonu nga ràññee ko yal na ci lépp rek mbokk ñëpp ñëw jënd aw saab benn yi sib benn yi sib alxuraan ñu jaay la ko ñeenti téeméer da nga mel ni ko jàng loolu lu rëy rëy la Cheikh Mamadou ñoo ngi siyaar baax jaay jërëjëf ñaari sib ak ni sib tubaarkàlla jërëjëf kooku jënd ñaari mooy li ñu naan ca jàkka ji rek ci weeru koor bi boo tàmbalee boo ne alif laam ba ci la fi shaqaq shaqaq bi ba'id mooy ñaari sionisme tubarkàlla kon maa ngoo ko jigéen ñi ñoom dëgg dëkk nag ñoom innal muslimee wal muslimaatee tax ñoom it nan ñëw kenn séenagu leen ma jaare benn si bismillah euh, maa jigéen ñi nan ñëw jigéen ñi moom séenagu ma leen ñoom nag dëgg-dëgg loo mos a woote ñooy njëkk defaru ñëw ñooy ñooy njëkk a ñëw tey nag damaa xamul lu tax góor ñi jiitu jigéen ñi loolu laaj bu rëy rëy la waaw damaa njëkk a laaj sëñ Ndiaye waaye jigéen ñi daan ñëw ñoom ndax ñoom innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaat xaanitina wal xaanitaat moo tax ba aaye laayee jeex tubaarkàlla xam naa ne daal e, tubaarkàlla daal tubaarkàlla waaw tubaarkàlla kon ma xam naa ni liñ jëndagul bëriwul ndax xanaa lu tolloo fukki isib rek lañ fi jënd te juróom-benn fukki isib la kon tubaarkàlla ma googu tubaarkaal la xam naa ni bu ma séenoon ñaari jigéen wala ñett rek mën a ndax ñoom alxuraan da lay tuddeew wu mag suratu nisa te góor ñi amuñu saar kon ñoom góor ñi waruñu leen raw tubaarkaal la tubaarkaal la kon boobu waaye la eh, kon xam naa ni eh, bay boo ñu doyloo lool rek te continuer ndax jàppul jàpp bi jéeg yooyu ba tey nag euh, bopp ñi si bi ma ngi fi di wecceeku ku mbokk ci bëgg a jël rek nga ñëw tubaarkàlla moom Cheikh Moustapha Ibrahima Gueye si bi jeexul xam nga jàng fukki si wàññiwul dara xam nga yow ku mel ni sëñ Mourou Gueye da nga ne war a tari fukki si waaye si dëgg dëgg kooku daa gàtt sëñ Mourou nee na ñaari si bi la tari cim kaan xam nga juróom-benn bu nga tari ñaari kooku gàtt na ah nee na daa am lu tari jiital waaye loolu lay sëñ daara la rek xam nga sëñ daara moom kooku benn isib la jënd tubaarkàlla ma ngoogu ma ngoogu tubaarkàlla sa waay ne tari woon nañ jiital kon yàlla yàlla fay leen tubaarkàlla te barkeel kon mangoo ngoogu kon ma ngoogu xam naa ne mbokk yi ñëw rek ñu yëgal leen njaay mi eh, maanaam alxuraan yi tubaarkàlla ñu ngi koy tas kon ñu woo Serigne Assane Camara Serigne Assane Camara gannaaw bu ndokkeele Baye Mor Mbeng eh, bàyyi ko ba gàll bi ñu ngi koy Amérique tubaarkàlla ñëw waaye moom Gambie la dëkk yi bàyyam tubarkàlla am na taxawaay lool ci daara ji ma nga ba Amérique kon bàyyam sax min sood fala yakun fi sadrika harajun minhu حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهور ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية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 ومتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم sadaqa allahu alazim ba tey des na tuuti ñu jëlaat euh, min awali suurati najm a'uudu billahi min alshaytaani rajim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 عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تعوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم sëñ Assane Camara bëggoon na noo xam alxuraan ñaata saar la ci ci langue français ak bu anglais gën a ñetteel bi nga indil ñu ko ci wàllu wolof bi ñu gën a ngir gën koo dégg bismillah xam naa sa mbokki gambien yi ak du ñàkk yooyu moo tax ñëw dugal ko foofu bismillah si français alquran 114 si anglais alquran 114 si wolof alquran téeméeru saga ak fukk ak ñeenti hmm, ci wolof tubaarkàlla ci maanaam loolu mooy saar yi ñaata hisib la si français alquran 60 hisib la hmm. si anglais alquran 60 hisib la hmm. si wolof alquran juróom-benn fukk hisib la. juróom-benn fukk hisib loolu dana wane ni maanaam accent yi loolu kon mun cee ñàkk ci def gi la koy def lool. shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim

nañuy teewlu rek alxuraan ji di ko bàyyi xel bu baax a baax ñuy séddale it nañuy séddale tamit bàyyi xel bu baax a baax rek إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بعضا ظالمين بعضا بما كانوا يكفرون

هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى مهلك القرى بظلم وأهلها قافلون sadaqallahu al-azim. sëriñ kon sëriñ Pape Mor la damaa ko fi leen nga man ci limu aayay alquran karim yi ñaata la aayay alquran karim ñaata la ay aayat nga waxal ma ko ci wolof waxal ma ko ci français ak ci anglais. alquran hmm. boo koy wax ci français. Hmm. mi nekk 6666. dëgg boo koy wax si anglais. ñu nekk six thousand six hundred and sixty six. dëgg la. boo koy wax si wolof. ñu juróom benn junni. ak juróom benn téeméer. ak juróom benn fukk. ak juróom benn. tayib nga ñëwoon na ci limu kalimaat yi nekk ci alxuraan limu baat alxuraan karim yi ñaata lim la ci wolof ak ci français ak ci anglais. lim baat alxuraan karim boo koy wax si français. Uh-huh. ni quatre-vingt-dix-sept mille. Uh-huh. cent trente-neuf. est-ce que. si uh-huh. anglais. mi ninety-seven thousand. four hundred and thirty-nine. dëgg la. si wolof. mi juróom ñeent fukki junni. ak juróom ñaari junni. ak juróom ñeent ñeent téeméer. ak fanweer ak juróom ñeent baat. dëgg la sa yëpp. kon dañu ñëwee nga waxal ma ba tey ginnaaw ba waxalee li mu yi ak li baat yi maa ngi soxla it maa sama mbokk yi li mu araf ñaata la. li mu araf yi nekk si alxuraan. Mhm. boo koy wax si France. Mhm. mi 32 mille. 315. Mhm. si anglais. mi 32 315. dëgg la si wolof. mi nit téeméer junni. ak ñi ak ñaar fukki junni. ak ñetti junni. ak fukk ak juróom. ndeysaan dëgg la tayib. signal yi nga ñu waxal ma lan mooy li mu tomb yi nekk alxuraan xam naa lu jafe xam la bismillah. terminé su Alxuraan. boo ko yow si France. muy uh-huh. cent quarante et uh-huh. quatre cent trente neuf. Uh-huh. si anglais. one hundred ninety seven thousand. four hundred thirty nine. su wolof mi téeméer junni. junni. ak juróom junni. ak juróom-ñeenti téeméer. ak ñeent fukk. ak ñeent si ay toom. te loolu dëgg la loolu noonu nag mën xam lool. adadu maa bu ñëwee ci wàllu sakalaat yi mooy masque yi wala. ci lim seen lim yi. mosque yi nekk si Akoram. boo hmm. koy wax si France. ñu hmm. 341 mètres. 128. Hmm. si anglais. ñu 341 128. si wolof. ñu ñetti téeméer junni. ak ñeent fukki junni. ak benn. ak benn junni. ak téeméer. ak. ak ñaar fukk. ak juróom-ñett si ay allah taala baatu Muhammad ñaata yoon la ñëw ci alquran karim baatu allahuma. baatu allahuma juróom yoon juróom yoon la ñëw si alquran. mën hmm. na fa nekk. bu njëkk bi suuratu Ali Imran. Hmm. bu deuxième bi. Hmm. suuratu Maïda. troisième suuratu Anfal. ñeenteel bi. suuratu Yunus. juróomeel bi ana mi yàgg ci sourate Al Imran sourate Al Imran mm-hmm. qul allahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa tayyib ana mi yàgg ci sourate Maida mu nekk sourate Maida قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء جرجر. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبسناه nafaw wala darra ak darra wala nafa nga andil ma baatu nafaw wala darra ñaata la ñëw ci alquran karim. ñetti yoon. waaw ban fan la. suutu mhm. laaraaf. suutu raadi suutu sabay. tayyib léegi andi bi rek suutu laaraaf. suutu laaraaf. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الخيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نصير وبصير لقوم بلغة الفرنسية mooy ci waxi français bu noppee sëriñ Assane Camara di doon tay te dëkk Gambie bokk américain yi dañoo ko jàngale dañoo ko jàllaleel bi lu xoti ingilisiya muy ci wàllu langue anglais moom ci discours bi ñett la seetlu ko muy olof ak français ak anglais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 وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kon mbokki jëf ju mata yóbbul ci bàmmeel mais alal ay yéen way gëm yàlla buur bi yéen

ne ma fàtte li ma la jariñ déglu leen kàddu dëgg gi mendi léegi di daw ngir ngeen mën koo waaj laata rëcc di ñëw ndax li dundi gi yàgg-yàgg dee dana ko feelu te wiiri duniyaa yàgg-yàgg jaari bàmmeel

dama ne wiiri duniyaa yàgg yàgg jaari bàmmeel yoon yi nag bari na waaye buntu bi benn la niveau social wuute na waaye tur wi wenn la te baadoola buur ak i mbokkam te moo di néew yoon bu si nekk barsàq seen réew dee màggkatu bànneex taskatu kër taskatu mbooloo dankatu mbër dee gan gudul fausse rendez-vous te du tarde heure du xeeb ku tuut te du tàggu benn buur والله خبير بما تعملون moo tax sëriñ Touba nee na dee moo gën a jege lépp luy jege te moo gën a raglu lépp luy raglu te moo gën a weex itam lépp luy weex te saa suy ñëw si mbégte rekk lay ñëwee. أقلموا وأداء مرار وبغتة يأتي وما عنه مفر فالمرء أقرب وأداء ku ne bis dina ñëw mu gane la te loo ko berneele lu dul sëru mu gàntu la te bis boobu su ñëwee amul may mama tuub li ma defoon ci lu ñaaw amul itam may mama jéggalu ñi ma amee loon xàq xamul itam ndaw si matul lu mu yore doonte xale la loo am am kàttan loo am am doole loo mën a mën a daw du tee tër la ci suuf loo doon doon gaynde bis bu ñëwee rekk nga mel ni xarum yafar alal ju bari daraja yàgg-yàgg mu des ginnaaw njaboot gi donn ko te naan ñu suul ko gaaw فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب moo tax sëriñ Touba nee na إذا كانت الأوهام لترك جواها فما بال متروك بالمرء يبخل الله وما بال مكروه بالمرء يغلب إذا كانت الأموال يريد الجمال فما بال متروك بالمرء يغلب بيت بوبو Sëriñ Tuubaa daf see wax ni nit ki su faatoo alal gim fi bàyyi lu mu bari bari du tax mu yóbbaale ci dara kon ana mooy njariñal jël alal di ko dajale rekk saa nga def ci lu baax tey tam nañu xam ne képp ku faatu ñaari fan rekk lañ lay jooy ñetteel ba ñu fàtte la moo tax sëriñ Abdoulahan Mbakke nee na dootuñ la baale nga am ne ñoo xarit yépp tàggu la jabar ya xëy di makiyaasu ngir seeti keneen te naan demam gi dutee suñu life gi neex ma ne jabar ya xëy di makiyaasu ngir seeti keneen te naan demam gi dutee suñu dund gi neex cey cey guddi gu njëkk si bàmmeel guddi gu njëkk ci bàmmeel cey moo ko tiis te metti lool bàmmeel ba weet bu boobaa nit ku nekk ak jëfam mu baax ak mu bon ku nekk ay gis jëfam yawma tajidul ذكره وما عملت من سوء لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويؤثرهم الله نفسا والله رؤوف بالعباد ma ne mu baax ak mu bon ku nekkay gis jëfam bisu keroog la nit di xam fan mooy këram ndax àjjanay xéewal yaa di këram wala kërug safaan ba buur ba yàlla taalee di këram ma ne bisu keroog la nit di gis munkar ak nakiir ak seen mbol day diis ya nga xam ne kuñ ko dóor nga weesu miir لها ak seen mbol day diis ya nga xam ne kuñ ko dóor nga weesu miir ñuy laajte seen bët ya di tàkk di génne ay ferñeent ñiy wax seen kàddu ya di riir nii dënn sib gént moo tax sëriñ Tuuba nee na ستعبد بجهاد القادمين أين عباد بجبر القادمين ستعبد بجهاد القادمين أين عباد بجبر القادمين من ضرر عند مكاتبة مسؤول البصر ليس يزاب عليهن ولا مع ستة في وسيلة الخلاف وكل قلب منهما sëriñ Touba ñaari malaayika yooyu te muy munkar ak nakiir sëriñ Touba nee na sawtaahuma xaati fi mu ne seen bët ya mu nga mel ni ay melax yuy xotteeku jóge ci kaw asamaan mu ne aynaahuma kamisi barqil xaati fi mu ne ñaari malaayika yooyu suñuy wax seen gémmañ ya day génne ay ferñeent te itam ñaari malaayika yooyu sëriñ Tuuba nee na li yàlla bind lépp leen ragal lépp leen di buslu itamit bu boobaa nit ku nekk dinañ la fekk ci sa biir bàmmeel boole ci itam bàmmeel ba xat lool lëndëm këriis ñu naan la xawma seefa ki baadoola mbaa buur jëf rekk lañu xam di duute antu góor mbaa jigéen bu boobaa nit ku nekk des nañ la laaj sa diine ak sa boroom ak yërëntu ba quraan foo leen tegoon bu boobaa bu fekkee jullit bu dëgaloon la yàlla dina ko may làmmiñ bu jub bu ko defee luñ ko laaj mu tontu ko bu ko defee tontam ya bu jubee malaayika yépp bokk muñ yaatalal ko bàmmeeram bam toll ni gis bu ko defee tontam ya ba jubee malaayika yépp bokk muñ yaatalal ko bàmmeelam bam torri soruwaayub gis ibil ko xëwal ya tëjal ko bépp jànqaree ki tiis waaye kaccor ya kuñ sa laaj ngay hésité mbool doya dal ya ñëw di leen sonal bàmmeel ba xat fees dël la ki boole ci itam ñu leen di mbugal mbugal mu tiis mbokk yi de jar naa bàyyi xel kon mbokk yi wa axiru daxweehumu alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf wa sallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli la vie quel que soit son louage finira dans le sombre comme il y a d'autres chemins qui se mènent dans une porte et tant qu'il y a monde il est hors question des proches sans épargner les bénédictions qui seront à ton porte reste la seule chose dont tu as besoin. ok soxna si ñuy déglu baax ngeen dallu Serigne Touba si soxna yu Mbàkke si Mamadou Lamine Bara moom si dina soxna yu Mbàkke moom Cheikhul Khadim mu ngi dugg ci ci baax bi alhamdulilah rabbil alamin looy def suñu baax ba ba Serigne Touba fekk la ci Serigne soxna yu Mbàkke way juróom mooy borom daara ji mag ji gën a mag yéen si Touba Serigne daara bu mag ba nga xam ne mooy maa ngi Serigne daara yu ndaw yi di bàyyi Serigne daara yu mag yi Serigne bi Mbàkke ñu ngi lay ziar yàlla na yàlla guddal sa fan.

Ainsi, des regrets apparaîtraient sur certains visages. La guide de Serigne Touba radiallahu ta'ala nous vient à nouveau de nous faire croire les problèmes liés dans son sens à travers beaucoup de racines, car il le compare comme le bruit du tonnerre qui vient s'abattre sur terre. C'est un moment que toute personne recortera le fruit de son travail, que ça soit le meilleur que le pire. Mais Dieu, Alhamdulillah, d'être parmi les vénères divines et que le paradis soit notre demeure. Amen. Que ça soit homme ou femme, le pauvre ou le riche, tous seront jugés à leur hâte, à l'effet de l'ignorance de notre Seigneur, car de notre prophète paix et salut sur lui, ou du livre saint qui selon les lumières qui pourraient aider l'homme à surmonter ses laits. C'est pour cela qu'on nous exige à être juste de pratiquer Les prières fondateurs de l'islam dont repose notre prophète, paix et salut sur lui. Car c'est seulement tu pourras s'absenter pour une sortie des questions demandées. Ce qui reste à faire, c'est d'absorber des punitions que Dieu nous préserve de cela. Amen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala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 radiallahu anhu. Brothers and sisters of Islam, today I am here to talk about the meaning or pronouncing the meaning of the word death. There will be a day for all of us. And to make it clear, today I am here to talk to all of you guys about it. Good character will show you the right way, but bad character may show you the wrong way. The truth is, Everything we'll see one day will not be seen again. And when we go to the grave, only one person will be there and two angels. Everything we see in this world, when we go to the hereafter, will not be seen. Which is why whenever you do something, do it for the sake of Allah and have a reason to do it. Why? Because who could believe that Allah put us in this world from disrespect, not reading his book, disworshiping him. What way could this be to the Almighty Allah? And one day, each of us will return, and no mercy will be shown. No matter how small, tall, fat, or short, everyone will be taken. There will be a day When friend will run from friend, animal will run from animal, husband will run from wife, and sister will run from mother. On that day known as the Day of which we all should be prepared for. Showing our deed, showing the right way. But rather, in this generation is a new generation. Where rather human beings think themselves as kings. Sitting Tuba said, when a human being passes away, you'll be able to cry for two days. On the first day, you may be able to cry. But on the third day, you must be silenced. While the person may be in his grave for his wrongings, no mercy will be shown. There's three questions will be asked whether you've been doing good in this world or not. Who is your prophet? Your God and your book. Mistakenly, if you're misable to answer all these questions, you'll be thrown in the Jahannam, also known as the Hellfire. While the other may be in his grave for his good doing and his righteous deeds. If you are able to answer all three questions, you will be told to the highest level of Jannah, also known as Jannatul Firdaus. So brothers and sisters, woe to the one that the shaitan misleads on this day, also known as Yom Al-Qiyamah. And soon our day is getting closer. Each day we wake up, the day gets closer and closer until it's finished. That's what life is. So brothers and sisters, today I am here to mention you all about pronouncing the meaning of the word death. Because soon our day will be closer, and soon our day will be here. Which is why today I am here to tell you a short talk about the meaning of the word does. Alhamdulillah, if it was a little bit more time, I would talk a little bit more longer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi yéen ñi wuyu si jotaayul islam bi di wuyu ci turu communauté bi ñu fi ñëw yépp communauté gambien bi au communauté sénégalais bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu képp ku wuyu si ñu ngi lay nuyu. di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di jiital ci nuyoo bi sëriñ Modou Guèye mu yoroon sang bi doon ko jàngal ak euh, ñeneen ñu mel ni moom ak sëriñ Mor si ñu fi nekkoon doon ko jàppale ak euh, di commencé ci nuyoo bi di wax sëriñ Arouna Dia itam ngi jógee Gambie di parent ci xale yi moom seen maam la ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit. sëñ Ibrahima Parcelles sëñ Ibrahima Sall ak Mohamed Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu seen ñëw ci jotaay bi ci wuyu si jotaay bu mag bi ak sëñ Jibril Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax leen ziar gis nañu seen taxawaay bu baax sëñ bi mu ngi leen di sant di nuyu sëñ Dame Sall Touba mu ngi leen di bu baax mu ngi dëkk euh, Touba di ziar bu baax. ñu koy itam sëñ Mahmadan Gaye unité 19 bu baax gis nañu seen taxawaay mu ngi leen di euh, ziar bu baax dinañ sëñ gis nañu seen taxawaay si jotaay bi tamit bokk na ci ñu wuyu si jotaay boobu Serigne Fallou si alum ga ñu ngi lay nuyu bu baax ak Serigne Saliou si Serigne Malick si ñu ngi lay nuyu euh, ak Serigne Mouhamed Cissé Dakar ñu ngi lay nuyu baax gis nañu seen taxawaay ci teewaay bi ak Serigne Mokhtar Seck ñu ngi leen di nuyu gis nañu seen taxawaay seen taxawaay bi rafet na lool Serigne Malick Sy Koura moom jarbaan la mu ngi jógee ba Saloum euh, euh, Koura Bambou la jógee ñu ngi leen di ziar bu baax gis nañu seen taxawaay gis nañu seen yëte si bis bi Serigne Tall Seck Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen tamit gis nañu seen taxawaay euh, ak Serigne Oustaz Moustapha Diop Mbour. moom ustaas la woon ci daara ji moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax seen Ibrahima si Touba ñu ngi leen di nuyu di gis nañu seen taxawaay bu baax si jotaay bi ustaas ustaas Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax moom tamit Kébémer euh, mbokk la ci sëñ bi ci jëwriñ la tamit ci euh, ci sëñ bi gis nañu sa taxawaay bu baax ak Baye Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax maam Samba Ndaw moom tamit. kenn la ci ki yor daara ji xale yi am si fi nekk ci daara ji yëpp ñu ci bari moom moo leen jàngal te euh, bokk ci suñu mbokku gambien yi di waree tari tey muy euh, Assane ak Ali Camara ak ñeneen ñi des ñëpp ñu ñu tudd ak ñi ñu mën a tudd ñëpp bokk na ci ñi jàngale daara ji bokk ci euh, oustaz bi nekk ci daara ji gën a mag ci daara ji di jàngale moom wax dëgg yàlla am na passé trop ci daara ji ñoom moom ñoo fi bokk nekk mais. Euh, nit ko am yitte la ci jàngale mi yàlla yàlla guddal fanam yokku taxawaayam bu baax euh, sëñ Omar Gueye moom tamit mbokk la di wala la ci sëñ bi mu ngi jógee daaru mi dem Bambuk mu ngi jógee daaru mu ngi jógee Koura Bambuk ñoo ngi lay ziar bu baax gis nañu sa taxawaay oustaz alhaaji si moom tamit rakk la ci sëñ bi mu ngi dëkk unité 17 17 moom tamit ci oustaz yi la bokk ñu ngi lay ziar bu baax oustaz Mortala Ndaw sëñ bi mu ngi lay ziar bu baax gis nañu seen taxawaay oustaz Jili Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax gis nañu seen taxawaay ci bis bi oustaz Ibrahima Sall Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax gis nañu seen taxawaay ci bis bi euh, oustaz Habib Seck ñu ngi lay nuyu bu baax yow tamit gis nañu seen taxawaay ci bis bi Ndiogou ñu ngi lay ziar gis nañu seen taxawaay bu baax a baax ci bés bi Mouhamad Kay Dakar ñu ngi leen gis nañu seen taxawaay bu baax Tahirou Seck moom tamit ci daara ji la bokk ci ñi taxawee liggéey bi toujours ñu lay nuyu bu baax a baax gis nañu seen taxawaay taxawaay bi rafet na Abdoulaye Ndiaye euh, benn barab sëñ bi mi ngi lay ci yow gis nañu seen taxawaay bu baax gis nañu seen yitte ci daara ji euh, Serigne Modou Mariama Sy Euh, di sant bu baax ñu ngi koy naylu di la jottali suñu naylu jottali wu sëñ bi sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ sëñ Mor yi ñoo ngi lay ziar bu baax moom tamit di jëwriñ ci daara ji ci daara ji la nekkoon doon jàppale sëñ bi moom mu ngi kër Mbay Fall ñoo ngi koy ziar bu baax a baax yàlla na suñu garab yokku taxawaay yokku man-man gi yokku kàttan gi yokku lépp sëñ Mor sallallahu alayhi wa sallam Mame Samba Diop sëñ bi mu ngi lay nuyu bu baax mu ngi lay nuyu gis nañu sa taxawaay bu baax Imam Sow ñoo ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa teewaay ci bis bi Serigne Modou Gueye comme ni ñu ko waxee woon moom tamit mooy suñu jawriñ ci lépp di jawriñu sëñ bi ñu ngi koy bu baax lii mooy lettre bi fi sëñ bi dañ ko ko jàllaleel di kàddu sant di kàddu njukkal tamit di wuyutu jotaay bi sëñ bu baax a boobu moo gën a fort looloo tax nag comme loolu dem na ba am ñu war a ñun suñ eh, wax dafay nekk am ndokkalante ak gërëmante bu si jiitu danañ njëkka ndokkale ustaas si matale bi nga xam ne mën naa matale kóorare bi nga xam ne moom la defoon nag waajur yi bi ñoo indi xale yi fii amoon nañ eh, luñ buggoon waxante woon a moom am mun naa am eh, amoon nañ si jiixi jaaxa ngir xale yi am nañ fu jaar waaye bi ñëwee mu fas mu mu mu joxe kàddoom mu fas si jobam ba lii am bon ñu ngi koy ndokkale bu baax ñu ngi koy ndokkale bu baax ñun ñëw nañ fi ñaari yoon te gis nañ taxawaayam bu rafet ak bu sella bon ñu ngi koy ndokkale bu baax ñu ngi koy ndokkale si turu du si turi ah, Abdou Salaam rek waaye si turi waajur yëpp ñi nga xam ne seen doom yi jàng nañ fii parce que gis nañ jotaay yi gis nañ fi xale yi dëkka gis nañ jàng bi gis nañ mbir yi ni demee te xam nañ mbir yi ni ñu naxaree dakaar ni mu naxaree dëkka jàngale ni mu naxaree fii waaye mun a góor góorlu ba mun a am as juróom-ñaari nit mbaa juróom-juróom-ñaari nit ñu mun a tari alxuraan si diiri ñaar ñaari at loolu liggéey bu ba liggéey liggéey bu mag la bon ñu ngi koy ndokkale bu baax a baax a baax. loolu mooy bu ndokkale bu ànd ak ngirmande parce que ngirmande bu bu ànd ak bu boo xam ne la amut fu mu em e, ñaareeli ndokkale bi mooy ñu ndokkale Abdou Salaam si boppam ak jabaram ngir dogu biñ am xale yii nii Amérique lañ juddoo sëriñ bi mu ngay wax ne mu ngay ñaan pour ñu nekk e, président Gambie waaye ñii américain lañ ñii ñu ñii duñu ay Gambien sax ñii ay américain lañ foofu lañ juddoo kayit yi foofu lañu amee bépp droit boo xam ne président Bush ah, président Trump am na fa xale yi boobu lañ fa am eh, Obama mi jógee fële nekk noonu ni ñi ni Obama mel noonu la ñuy mel bon ah, eh, pour pour génnee xale yi foofu pour génnee xale yi Amérique ñëw fii jàng si loolu du du caaxaan loolu du caaxaan Eh, loolu man si man duma ko toolaale waaye dama ko bugg a dama ko bugg a misaale Ibrahima aleyhi salaam Ibrahima aleyhi salaam bi mu géntee mu mu ne dafay rey doomam ji eh, moom si boppam jaxal na ko parce que tëbul rek dem rey xale bi dem na ñetti yoon génte bi ñu diggee ko ñetti yoon si la door a dogu waaye nettalikat yi nu ne bi ñu ko wa bi bi seytaane pare yaaxa affaire bi dem na si jabaram mu ne ko gis nga sa dof bi li paree def génte rek mu paree rey doomam eh, ndaw si nag di nit ku dogu mu ne ko suma jëkkër ku baax la nit ku yiw la lu mu def rek yàlla mu ko ko def loo na d'accord naa si loolu waaye doga xale bi tam ñu dem si moom pour yaxa xelam waaye xale bi li mu wax si alxuraan ñun ñëpp dégg na ko mu ne wax na baya baayam loo def rek di ma fi fekka man dinaa muñ eh, Abdou ak jabaram foofu lañ jaar dogu boobu lañ am parce que Amérique ku fa juddoo di fa jànge lépp ak fa nga war a génne sa doom foofu noonu ici ko Sénégal fii xamuloo mbir yi ni mel musuloo koo dëkka mësuloo koo dunda nga war a bàyyi sa doom fii mu jànga eh, affaire yi li ñoo wax health affaire yi wér-gu-yaram affaire yi lekk yi affaire li te ñoom ni si taxawee nga war a bàyyi loolu yëpp fàtte loolu yëpp am dogu dogu bi bon ñooñu ñu jar a ndokkale lañ والقمر الشمس والقمر بأسبان والنجم والشجر يسجدان jërëjëf saa saa loolu bi yem foofu nag si Moustapha Sall nga jege sëriñ bi mu joxal la sa saxaada nga bàcc lool. ñu ngi tàmbali nag muy waajuru dongay daara ji gannaaw bu ñu gërëmee dongay daara yi ba noppi ndax ñoom itam ay muñkat lañ wax dëgg yàlla ñi ngi daara ji ñu ngi góorgóorlu guddi ak bëccëg di nangoo jàng di di di sax ci li nga xam ne moom lañ leen digal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla def ci ñoom barke. loolu nag buñ ci mënee am ndam muy liggéey bi tey euh, sëñ sàmba ak ñi nga xam ne ñoo ko ñooñ ci jàppale muy sëriñ Malick si ak euh, sëriñ Khadim euh, Noxo ak sëriñ Oustaz Khalidou Wan ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi ak sëriñ moor si mi xam ne ñoo àndoon tàmmande woon liggéey bi. mu nekk ci ba yàlla dogal mu ubbi beneen euh, ñu ubbi beneen daara mu dem foofu moom mu wax dëgg yàlla taxawee liggéey boobu kon nag ñu ngi koy sant bu wér sëriñ Mor si ñu ngi sant it suñuy bokk suñuy bokk it ñu ngi ci tàmbalee ci cant gi sunu mag sëriñ sàmm Ndaw mi nga xam ne moo fi ñëw teewal fi sunu waajur muy sëriñ Mood Ndaw di sant it sëriñ Omar Gueye mi nga xam ne moo ànd ak moom di sant it sëriñ Ali Mbeng di sant moom ci euh, parent d'élève la Ali di sant it euh, soxna Awa Ndaw mi nga xam ne moom itam moo jógee ba Njawen di sant it eh, soxna lu kaar di sant gi di ko jaarale ci moom mu jaarale leen ci Moustapha di ko di ko tàmbale tàmbalee ci Alaaji Xaasim mi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp ñu ngi koy sant bu baax ndax moo jëloon njabootam dénk ñi moo yi ña ñi ànd ceeg muñ lool di sant it mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp Ramata Sall ñu ngi koy sant bu baax ci mbokk yi ne dakaar ni ko sëriñ Massamba waxee di sant it Adja Aïda Diop moom itam ku jàpp ki daara di mbokk di sant it Adja ayda Sall ku sonn ci bés bi la moom itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy bérlu cant ñu sonn ci bis bi lool def na ci alalam def na ci ñaqam def ci léppam yàlla na yàlla fay du moom rek ci def waajur yëpp def nañ ci waaye moom itam wax dëgg yàlla dafa bëgg lu baax ndax euh, xale yi fi ne ay baj bàjjan la ci ñoom euh, moo tax mu di ci feneen ak yéeneem ak bëgg-bëggam di sëñ Abdou Salaam mi nga xam ne moom itam moo moom la doom yi doon tari tey ak mboolem parent def li seen seen doom doon tari Abdou Salaam ku sonn ki daara ji la ku fi defu ñaqam bu baax la bis bii euh, xale yi moo leen solal ñi mokkal ñëpp moo sol moo solal seen yére moo xotti moo ñëw li liñ sol yëpp moom moo ko ci def ba ci sëñ daara yi liñ sol moo moo moo ci feeñal yéeneem ne day solal xale yi solalaal sëñ daara yi parents d'élèves nag ñoom ñoo def bulus yi kenn ku ne yaa def sa bulusu doom waaw ñi ngi sant it ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci bés bi ñëpp moo ñu jàppoon ci bâche bi sëñ Mouhamed Ndiaye gërëm nañ la bu baax sëriñ Maar Diouf ngeen ñaanalal ñu ko yàlla gën ko fay moom itam yokk ko bu baax di sant it ñi nga xam ne mooy dëkkandoo yi ndax dëkkandoo yi ñu jàpp ci bis bi lañ wax dëgg yàlla dëkkandoo yi yàlla na la yàlla fay leen ndax it euh, sonn nañ ci bis bi guddeeg bëccëg nelawuñ di di seen lépp ñu koy def ci yitte ci bis bi rek bis bi rafet kon nag yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay leen ñu togg yi seen jaar na yoon wax dëgg yàlla euh, nit ñi sant nañ baax lekk nañ ba suur kenn ku ne wax dëgg yàlla euh, jëf ni ko ci la soxla kon nag ñu ngi leen sant yàlla yàlla fay leen di sant sëriñ Fallou si mi nga xam ne moo yoroon tari bi ak sëriñ Massamba Ndiaye di sant it sëriñ Ousmane Seydina Ousmane Ndiaye mi nga xam ne moo doon waxtaan ci ci thème bu am solo boo xam ne ñëpp jariñu nañ ci wax dëgg yàlla di sunu mag di sunu koo xam ne yàgg nañu taxawu di sant ñoom sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Maxtaar si ñu ne ci euh, taabal ji suba ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ci demuñu fenn ñu ngi toog ak sëriñ Alhaaji si di sant it sëriñ Ibrahima Jayte ak mbokk gàmb yi mu àndal ñëpp ami siise sant nañ la bu baax li mbokk yi jàllale ci kàddu ci sa taxawaay ak mboolem ñi nga àndal sant nañ ci bu baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen a taxaw bu baax a baax xam naa fi mu ne nag bi dafa gudd kuñ fàtte nga jéggal ñi mbokki Touba sant nañ leen bu baax ñu jógee tuubaa ñu jógee Saalum ñu jógee Dakar wuñ kenn Omar Diop sant nañ si taxawaay ci baas yi borom rajo bi sant nañ ko bu baax ci taxawee rajo bi caméraman sant nañ leen waa Lamp Fall yi wuñ kenn xam naa kuñ ci fàtti daal nga jéggal ñi ñu ngi sant it suñuy soxna ndax liggéey bi tar na lool mooy soxna Faali ak soxna Mariama ak soxna euh, Ayda moom itam di soxna sëñ Masamba jàpp na ci liggéey bu baax waaye soxna Faale soxna Mariama wax dëgg yàlla bañ sosee daara ñoo ngi ñooma ànd soxna Safia mi yor seetu daara ji ñu ngi koy sant bu baax moom itam wax dëgg yàlla muñkat la mi ngi jàppale daara ji te yàlla tax li li mu jàppale du fay guñ ko fay kii ko ko sant yëpp mooy yaayam eh, Ayda Ayda Ndaw soxna Ayda Ndaw muy sunu mag moo ko sant na ñëw ci daara ji daara ji ci cetuk daara ji loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax wax dëgg yàlla buñ limee dañ ji Moustapha Ndaw sant nañ la bu baax mi ngi jógee Tëngéej ak mboolem ñi mu àndal bàyyiwuñ ci kenn di sant it dong yi jaaroon ci daara ji ñoom itam bis bi taxaw nañ ci lool wax dëgg yàlla si ay nañ seen yitte gaañu Siise Babacar ak Mouhamed Diop ak Serigne Diassi mi nga xam ne euh, lépp luy ay naan ñoom ñoo ko fi indi ak ñoom jàng yi jaaroon ci daara ji yëpp di sant dëkkandoo ñu ko sëñ Ndiaye sant nañ leen baax gis nañ taxawaay bi soo ba léegi noppalu woo waaye nag nañ leen bàyyi alxuraan bi am fay mu booy leen fay yéen ñëpp wax dëgg yàlla di sant parents d'élèves yëpp alaaji yoro sant nañ leen baax alaaji daam bàyyiwuñ ci kenn kuñ ci kuñ ci limul daal nga jéggal ñu ko soxna maama daraame ngeen santal ñu ko yéen mbokk yi jógee Gàmbi ngeen war ko ne ko sant nañ bu baax ci taxawaayam ci daara ji am na diplôme bu ñu ko jox moom itam ngir sante ko ko rek wax dëgg yàlla da ci jàpp yàlla tax ak mbooleem euh, dong yi jógee bitim réew ak yi ne Sénégal yëpp ñu ngi leen di sant di sant daal képp ku fi teew kuñ tëdd kuñ tuddul sëriñ Fallou Ndaw gis nañ taxawaay bi euh, di sant euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci taabal ñoom itam sëñ Maxtaar lay ñu ngi lay sant bu baax ak sëriñ Sall sëñ Daam Sall ñu ngi lay sant bu baax sax Mohamed Ndiaye ñu ngi lay cant sëñ Mortala mu doon taxawee wàllu kii bi xéewal gi Mortala Ndaw moom itam ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay te defal ko ngeen ji fay di sant it euh, mbooleem ñi nga xam ne daal jàpp nañ ci bés bi muñ leen a lim Adja Ayda Diop ku sonn ci bés bi la Adja Ayda Sall ku sonn ci bés bi la sëriñ sa nu ma ko waxoon Abdou Salaam ak mbooleem ñi nga xam ne lim nañ leen wala ñu fàttali leen rek ñëpp gi def seen seen seen dërëm rek Ramata Sall gis nañ taxawaay bi Khady Lukaar gis nañ taxawaay bi ngóone mboolem ñëpp gis na seen taxawaay ñu ngi jéggalu bu baax te yemale foofu kàddu yi rek kuñ limutit ñi joxe courant bi muy imam Keba Touré sant nañ leen baax seen kii wax dëgg yàlla buñ ci xëyee ba léegi seen courant la ñuy lakk dara dañ ko def te yàlla tax ñi doon taxawee bâche yëpp sant nañ leen ñu lu yewoon bâche yi ak sees yi lépp ñu ngi leen gërëm te di leen sant bu baax a baax waaye dafa wax na alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf